ñu taxaw ak kenn ci ñi nga xamee ne ñoo yor wàllu liggéey bi di di ki ko jiite woon di sëriñ Modou Kouraloo ñu mu fas yéene ñoo leeral li nga xamee ne moo exposition bi ak li nga xamee ne wund na ko làmboo na ko ci ay njariñ ak ci ay xam ne jëm ci Touba Kanam suñ Modou Kouraloo ginnaaw bi nga xamee ne nuyu nañu siyaare nga nuyu ñi lay seetaan lan nga ñu mën a wax ci exposition bi nga xamee ne Touba Ca Kanam woote na ko ci ñaareelu édition bi. waaw sama sëriñ maa ngi lay ziare bu baax di leen jaajëfal ak ñi leen di topp ci biir réew ak bitim réew Euh, di rafet lu baax seenub liggéey te di leen encouragé bu baax a baax a baax waaw yéen a ngi ci bâche Touba ci kanam bi muy exposition bi ren ji nag mooy deuxième édition daaw lañ ko defoon biñ ko defeet amoon nañ ci réussir bu baax a baax a baax euh, yàlla dogal ñu fekk waat ren ñu ne nañ ko amalaat euh, ren nag dafa nekk année bu spéciale ndax ñi ngi dund ci contexte bu méttee méttee méttee ñu koy wax jàngoro jàngoroy Covid 19. mu doon loo xam ne ni suñu génération bi mosuñoo dund lu mel noonu xëy na mag ñi amoon na fa waaye ñun moom mosuñoo dund lu mel noonu euh, mu nekk contexte bi spécial loolu nag tax na ñu taxawal exposition bi waaye mu wuutee ak nañ ko taxawaloon daaw euh, ren nag exposition mi ngi commencé le 3 bala 8 maanaam samedi barki démb la commencé mi ngi war a dem ba alxames bu ñu màggalee ba ci gannaaw suba sa Euh, ren nag niñ ko defee mooy dañoo gis ne Touba ci kanam association la bu structuré wu euh, ñu ne nag bis bu jot danañ ko jagleel ñaari commission ñaari commission yoo xam si ni ñooy ñëw wane seenub liggéey leeral seenub liggéey nan lay doxee euh, loolu lu bees la par rapport ak daaw nañ ko doxalee woon ren it am na yeneen innovation yoo xam ne si ni am nañ ci la ci njëkk mooy Touba ci kanam léppam niñ koy waxee rek suñu slogan mooy laaj nit ñi lu ñu man di ko def fu ñu xam naam nit ñi ñi leen laaj lu ñu man te ñi ngi koy joxe ñun ñi ngi koy joxe danañ ko sàmm topp too ko fexe ba dugal ko fa tax nit ña joxe ko ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kàttan euh, loolu nag mooy objectif bu njëkk bi nga xam ne si ni moo tax ñu taxawal exposition bi ndax bëri na mbokki taalibe yoo xam ne ñu ngi ci yeneen région yi am na ci ñoo xam ne si ñu ngi ci diaspora bi te ñu ngi participer xëy na màggalu tubaa lañuy am occasion ngir ñëw Touba moo tax ñu def exposition bi ngir ñoom bu ñëwee ñu wan leen li Touba ci kanam réaliser. nga xam ne réaliser na ko ba pare ak li nga xam ne si nii mi ngi koy réaliser ñuy wax lee réalisations en cours ak li nga xam ne si nii war nañ ko réaliser ci kanam ngir ñoom ñu xam ne kon xaalis bi ñuy indi fañ koy dugal euh, fu leer la ngir gën leen a sawarloo ngir gën leen encouragé lool euh, objectif nag euh, mën nañ ko xayma ci ñett bu ci njëkk mooy leeral nit ñi seen seen participation ci ci ci cotisation muy 1000 francs yi ñaareel ba mooy massifier massifier ñaareelu objectif ci exposition bi mooy massifier ndax bëri na taalibe yoo xam ñi ngi dégg Touba Kanam waaye xamuñu ko bu yàlla dogalee nag ñu ñëw ba fii ba dugg ba visiter ba ziyaare ba gis li fi nekk danañ mën a waxtaan ak ñoom xam leen suñu liggéey ngir ñu mën a adhéré wu euh, ci projet bi weeru jot ñu man di joxe seen ñaar téeméer moo xam dañuy dagg reçu wala dañ koy jaarale ci Orange Money bi. ñaari fan yi yëpp ñi ngi koy visité bu baax a baax te animation yi commission yi di def ngir di ñëw di leeral seen liggéey nit ñi ñi ngi koy assister te ñu ngi koy jaarale ci réseaux sociaux yi tele yi ak site internet yi yëpp ñi ngi ñëw di ko jël te boo xoolee da gis ne ñu ngi koy suivre bu baax a baax a baax kon ñi ngi atteindre suñu objectif. aussi ren it dafa doon année boo xam ne ni ma ko waxee woon ci njëlbeen mooy Covid 19 euh, gannaaw ba ñu sëñ bi digalee ne nañ màggal. ba ñu sëñ bi digalee ne nañ defar exposition bi da teg nag daan ne lépp luy mesure barrière nañ ko respecté lépp loo xam ne si nii waa kër docteur wax nañ ko nañ ko respecté moo tax boo xoolee fee ci gannaaw bâche bi da fa gis benn antenne médicale boo xam ne si nii Touba ci kanam moom moo ko fi moom moo ko fi indi. Euh, ay fajkat ñoo fa nekk yor seen i thermoflash di xool température nit ñi. di maye ay masque di maye ay gel di maye ay médicaments gratuite ba pare di def consultation aussi gratuite boo xoolee porte bi teg nañ fa benn table boo xam ne si ni ay gel ma nga fa ay masque yu bëree bëri ma nga fa képp koo xam ne si ni yaa ngi dugg boo amee masque dañ la bàyyi nga dugg waaye boo amul masque danañ jël ci suñuy masque bopp jox la nga takk ngir nga mën a dugg te da nga laal ci gel bi tamit aussi doog a visiter doog a doog dugg. liggéey ak jaamu yàlla jaamu yàlla moo ñuy jariñ fa ñu jëm waaye liggéey moo ñuy jariñ fii liggéey nag dafa amaat ci biir lu ñuy wax xidma mooy nit ki liggéey benn mbir wala di def dara te li ngay def njariñ li séentuwoo ko mu dellu si ci yow waaye ci ñeneen lay dellu ñeneen ñoo xam si ne amaana xamoo leen wala sax mu delluwaat ci communauté bi loolu mooy xidma loolu nag ñi ngi ciy woo ñëpp di ci woowaat taalibi yëpp te suñu waxee xidma mooy ñi ngi wootewaat en même temps ci Touba ci kanam ndax Touba ci kanam léppam xidma la kiy joxe ñaar téeméer da koy joxe ngir jëmmi suñ Touba fañ ko koy dugal it dañ ko koy dugal ngir jëmmi suñ Touba amaana ki joxe ñaar téeméer bañ tabax ci poste de santé mën naa am kooku poste sant bi du ca mas a faju mën naa it doomam wala ak njabootam duñ ca mas faju waaye ña fay faju ñëpp dañu faa faju te moom moo waral ñoom ñi dafa faju kon loolu day duggaat ci xidma fi may waxee yow na li gën a jàmp bu gën a jàmp mooy assainissement bi nga xam ne ñu ngi ci am na ci yoo xam ne si nii pare na ba libéré nañ ko li ci des incha allah rabi bu màggal ki pare danañ ko àggale euh, fan yi may wax fi may waxee yow rek fan yi jënd nañ benn machine boo xam ne li ko tax a jóg mooy di mool wàllu pavage Euh, kon projet yi gën a jàmp mooy danañ xool fi nga xam ne si nii mérito nañu pavage ko ci xorum bi ak li war jumaa ji ak yenn penc yi nga xam ne si ay penc yu mag la foofu danañ ko pave bu dee ci wàllu éducation tamit aussi am nañ ci ay projet yu mag a mag fii may waxee yow université bi nga xam sëñ bi moo ngi koy tabax ba ko sëñ bi wootee rek lañ jël téeméeri million jox ko ko ne ko nag li fi chantier yaa ngi fi ñuy ànd ak yow ba keroog chantier bi di jeex jël nañ fa bâtiment 800 euh, millions ci xayma. nga xam ne R plus 3 la bi ñuy waajal màggal gi kuule nañ deuxième étage ba kon mu mel ni troisième étage bi moo ci des loolu ci projet yi nekk en la euh, bu dee ci wàllu éducation aussi euh, war nañoo lancer deuxième phase bi di former ay sëriñ daara première phase bi lancé nañ lu tolloog wala boog formé nañ lu tolloog cent cinquante sëriñ daara formé nañ leen. ci ay matières yu différente yoo xam ne si ne da leen amal njëriñ bi ñu paree jox nañ leen seen i xam naa bu màgg ak jàllee danañ lancer waat deuxième phase bi lool it lu am solo la loo xam ne si ni day participer ci jàng ak jàngale ndax nit kiy jàngale il faut nga am pédagogie il faut nga mën a jàngale la ngay jàngale doo ko mën a am résultat euh, lii tax nga xam ne réalisation Touba ci Kanam bëri na mooy am nañ fukki commission ak ñeent te commission bu ci nekk daa am chargé woo te la nga chargé woo lépp ngir dëkk bi jëm ca kanam la te ku ci nekk am nga ay projet yooyu nag buñ fi bëggoon a lim ko bëggoon a lim xëy na dana jël waxtu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat